asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci waxtaan wu gàtt rekk jëm ci réew mi ñu bokk ak diine ji ñu bokk ak valeur yi ñu bokk tey ci valeur yooyu lañu ñu dellu ndax gis ay anti valeur lu safaanoo ak ndono gi jóge woon ci suñuy maam ñëw ba ci suñuy loxo gisati sax laay wax ndax bërki démb bu yàggagul waxoon nañ ci am naa yéene nag sax bañ cee waxati donte nag faawu tey jii ñu wax ci ndax jaradilu la wax muy mbirum mbooja mbaay mbooja mbaay xolli na gunóor mbooja mbaay xëtt na charte dem na dayoo li tax ñu ciy waxaat nag moom moo defaat vidéom gis naa ne nag ñu bare ñemewuñu koo tudd ndax xëy na ragal ay réaction man ragal may réaction man ndax lu ñëw lu ne xam naa la ca war ca réaction jëma jóge ci man nag ndax man lu ñëw rek mën naa koo gérer sama bopp man yéen a ngi seen vidéo bi mu ngi jàkkaarloo góor di ko expliquer nee naay lu ko dal ci àll bi jigéen joo xam ne ji danga am xorma am looy seet am looy yëg am ci diine tuuti rek lu ñuy tollook leen li tuwe nga toog ak góor jël sa loxo bi waxtu wax wax joo wax teg ko ko wax joo wax teg ko ko seetlu leen loolu su fekkee ne am ngeenuk seetlu yéen tamit góor goo xam ne gi du sa koj xaraamante ngay wax di ko teg sa loxo di wax di ko teg sa loxo xanaa moom it nangu na lool man jo mbooja mbay mbooja mbaay rafetatuma njort ci moom loolu nag sama position personnelle la kon ñu ne ma lu tax ngay wax ak ay waxam ma ne leen damay ragg sama der sama digganteeg suñu borom ëllëg bu ma dajeek moom di ragg sama der itam ci kanamu sénégalais yi su ëllëgee danañu ne ay la yëwan de moom noppiwu ci woon mi ngi nettali ay nettalim nag ku xóotum xel la ca tuuma ko nee na day bañ a dee ci biir otel wala boog auberge la wax oberge guddi nag nag la demoon bu leen ko fàtte moom moo ne boo génnee ci biti dafa lëndëm këruus moo ko wax de auberge guddi nag <laughs> ma ngay wax nag di ko jéem a lay yi nag nee dafa am cër bu mu bañ ay doomam nangam nangam nee na waa ji ni ko duma la tëdde parce que yow jigéen ju baax nga jigéen ju baax nga woo ko ci biir auberge mu ñëw wuyu si la nee na moom su waa ji jógoon pour tëdde ko du mën ci moom dara parce que lan nee na diriyànke la waa ji kay ba mu la wootalee ba nga ñëw ba ci biir auberge bi bu la bëggoon a tëddee góor la te ne nga nee nga ponkal la ca kaw la àgg day waaxu agsi ci yow tëgg la kurpeñ ci uppercut uppercut la lay jox nga jaaxaan lu mu bëgg a def def ko kon yi ngay wax mbooja kan nga ko bëgg a dugal ci biir boppam nga ne moom du mën ci yow dara bu bëggoon a àgg ci yow waaye nangu nga yow nga jël sa loxo di ko foowe kon kay ba nga bañee parce que comme bu doon def ci yow du àgg kon xam nga ne mënulaa tëdde mu nangu loola leneen kon waxoo lépp waa ji nee na la dafa am doole nga ne ko doole jooju moo tax ma doon naxante mbooja sa wax yi jaxasoo na sa wax yi jaxasoo na amul benn logique sa xel mi nag yaa ko moom bu la neexee dee ko foowe loolu xale yi di wax li nga sàcc ci film bi danga koy indi ndax auberge guddi daal xam nañ sax yoor yoor xam nañ sax diggu loor xam nañu sax tàkkusaan waaye guddi yaa ne dafa lëndam kërus nag ngay fowe suñu xel yi mbooje da ngay seetaat sa bopp ñi lay tàccu bugguñu la fiñ la jañax jëme baaxul xam nañu nit ku vulgaire obscène ñàkk teggin ñàkk kersa xam nañu dofit nag xam nañoot sax ku ñàkk kilifa waaye li nga nekk moom amul ci yooyu benn bu may nuru man wala yaasu billaa xol bu xasee ba wow nit ki xelam dootul xalaat lu baax vingt quatre heures sur vingt quatre foo ko fekk ay caaxaan lay lay lay dund xam nañ ne nag man gis naa ne dangay dox àggagoo fi nga jëm ndox ba nga nee ku ma gëm ak ku ma gëmul alhamdulilah ndax comme xam nga ne rek am nañu la dul gëm baax na sa jëkkër nag moom ndeysaan li ko dal seddul moom malédiction foofu la mën a yem am na lu ñuy wax dayuus ci ci arab mooy góor gu ne yàcc yàcc ci yàccaaral xamoon naa ci kook ñaari soxna la yor bu moomee ci kii kële fanaanoo waayam ci biir kër gi am na góor gu àggoon foofu ci jooju ja waaye góor gu mën a bàyyi sa jabar muy def yii ba faf léegi tey jii nga am jabar mu ne la dem naa ci auberge ba jàpp naa fa yëfi góor eh, yëngalal naa ko ko nga continuer di ànd ak jooju jigéen xanaa yow bu fekkee ne noonu nga mel sax xanaa am ngay mbokk yow jëkkëram xanaa am ngay mbokk say mbokk ñoom ban bët nga leen di xoolati seen yaay say doom bu ñu demee école wala ñu dox ci mbedd mi mère para lañ koy tuddee mère para para parce que mère bu dem para para góor loolu bu na la leer ne boobu tur moom da lay topp muy waat nag ci tur Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa moom awuma yaakaar ne dina am ku ko taxawalati xalaatuma ko ndax sos yi yàgg na bari na te fu ne lay jóge nag fu ne ñépp ko góor ak jigéen mag ak ndaw rawatina ak njabootug boppam nag kon su ñépp di sox nag yaakaaruma ne moom <laughs> ab deram dana setati moom waaye nag ab jaamub yàlla la boo xam ne bii mënta toltul boppam mënta weddil boppam ndax fa mu nekk waaye suñu borom nag ku mën a atte la moom yàlla day atte ñiy dund di atte ñiy di atte ñiy dund ak ñay dee loolu suñu borom faw mu def ko mbooja nag dafa mel na prototype bu sénégalais la ndax dafa mel na li muy def it nag naqariwul nit ñi bi may toppaat wax ji di topp yeneeni waxam soo demee ci TikTok bi dangay gis view ya gis abone ya jéggi dayoo nga xam ni kon Sénégal ñoom it ndokk ba ñu amee ku mel na mbooja ndax moo leen di dundal loolu xale yi di wax moo leen di daaneel ko defee bokk yi nag ñu gën a góorlu ci suñu digganteeg suñu borom góorgóorlu suñu digganteeg suñu doom yi ay nawle lañ ndax bés a ngi nii soriwul kenn ku ci ne ñun dana layo laloo ndeyjooram te jëm mii de ana moos yàlla na yéex yéenewu ma ko ko bu deewee xanaa ay nit du ñu taxaw tiim ko naan mi ngi nii ku baax a ngi nii woon ay Sénégal ñeme nañ ko nag bu ko defee ñu yemale kàddu gi fii ba beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.